li ma bëggoon wax tey mooy euh, dañ leen a woo pour yëgal leen li fi xew dañoo toog ba ñu yëgal ñu ne Ousmane Sonko député def fi ñëw ñun de Ousmane Sonko ñoo ngi ko doon xaar mu dem assemblée nationale wuyu ji ci commission buñ ko woo mu leeral mais talul ay leeral muy dox ci université bi nga xam ne temps yëpp nit ñi li ñu fi nekk mooy sensibiliser nit yéen ñëpp xam ngeen ne wax nañ fi ay cas Covid au lieu que ngay ñëw au lieu administration baa ngi sensibiliser di def ay ay ay ay ay ay ay visite di demander étudiants ñu sol seen i masque di interdire ay rassemblement moom mu ñëw organiser fii rassemblement ñu xam ne aussi lu muy wër du dara lu dul affaire politique loolu nag duñ ko ci bàyyi nit boo demee tilimal sa bopp ci àll bi nga foog ne université ngay setee doo fi setee da nga am problème ak nit nga dem régler ji ak nit kooku noonu seen problème ci yoon mais waaye jóg ñëw université naan da ngay seet kan di dugg ci ay maali oto di jaar fu ne pour dugg ci biir université loolu moom du nit ku am responsabilité moo tax nag yenn yi buñ la koy wax nga koy def boo ko defee nit ñi di la koy wax je pense que am na yenn affaire yi buñ ko waxee ci yow dañ koy gëm tey ko laaj mu ne la fan la jaar donc lu luñ ko mun a waxal rek nit mun na ci am njort ne mun na ko def parce que bu nekkoon nit nekk nit ki nga xam ne aussi conscient na situation bi Sénégalais yi di dund ci wàllu feebar bi am na li nga xam ne di nga ko éviter. maintenant nag ku foog ne université ngay setee doo fi setee parce que étudiants yi fi nekk aussi tal nañ leneen tal nañ jàng tal nañ tal nañ fu ñu fu ñu passé seen fu ñu jàll ci seen at. donc foog naa loolu moo gën a am solo ne nekk ci université bi di wër wala nekk ci biir dëkk bi au moment que assemblée nationale a ngi lay woo pour nga ñëw leeral. am nga yoon aussi boo demee justice nga leeral ngay wër nit ñi ku la wàllu wala keneen ku nga xam ne aussi dina la jàppale ci ay li nga xam ne dañ la koy jiiñ def nga ko defoo ko loolu aussi vraiment tey na xel daal moo tax ñu ne fii Ousmane Sonko ko keneen a ci yem bépp nit bu fi dugg duggee fii ngir leneen nag étudiant leneen da nga fiy nekk ci sa jàmm mais bépp nit bu fi dugg aussi ngir politique ñun personnellement dinañ politique ak yow fu muy yem nag nañ jàmmarloo yow bu baax nga xam ne aussi ñi fi nekk tamit nekk nañ fi pour fair face bépp nit bu fi andi ay affaire politique loolu daal moo taxoon ñu ne tey ñu woo euh, presse bi pour yégal leen aussi li nga xam ne moom moo fi xew mais waaye ngeen jàpp ne newul ne université mooy setal Ousmane Sonko Ousmane Sonko pour mu set il faut mu dem ci yoon te xam naa ne aussi moom mooy setal boppam bu fa demul woon kenn du ko fu tudd bu toogoon këram boo sa ñaari jéeg sa biir kër. di wër ay nit ñi nga xam ne dañ lay maase amuñu liggéey amuñu xam jànguñu pour damp ñu lay damp aussi loolu moom xam naa ne daal loo fa loo fa jëlee daal yaa ko teg sa bopp. ñoo ko wax nag na dem répondre justice leeral boppam université du ko setal université du kenn fii ñu fi nekk dañu ut xam-xam waruñ kuñ setal ñu fi nekk xam-xam la ñu ut taluñ kuñ setal loolu daal lañ leen bëggoon wax. ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen xam ne aussi euh, fii moom ñoo ngi leen di ku képp ku fi andi politique nag ñoo ngi lay xaar avec des pieds fermes. Thank you.